salaamaaleykum wa rahmatullah Mouhalim info numéro un ñi ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu waa numéro deux numéro trois numéro quatre numéro cinq waa Mouhalim sport waa Mouhalim Facebook waa Mouhalim TV waa groupe As-Samadiyya waa groupe Yeewu jot na waa groupe Silatul Rahim info ak mboolem warab yoo xamante ni itam ñu ngi topp seen groupe bii di Mouhalim info seen mbokk la Xaadim Thiam ngir tënkal leen li fursan la ciy xibaar. ci kàllaamay wolof tey jii dibéer fukki fan ak juróom ci weeru janvier deux mille vingt trois dix huit heures vingt cinq minutes ici à Dakar Sébikotane ak li ko wër ñu a xibaar yi ak nomination bi nga xam ne mu ngi concerné docteur Abdoulaye ñaan nommé nañ ko directeur général banque bii di BNDE moom nag ma ngi fa wutu kii di. Euh, Thierno Seydou Nourou Sy mu Abdoulaye ñaan mii ne ñu ngi gënee àddina fële ca Mbacké Euh, door am njàngam mu suufeem itam ci école privée Cheikh Gaynde Fatma nekk ci ca Daaru Xuddos ginnaaw bi itam la dem Mbacke dafa fa CM foofee ca Mbacke Bawol CM Gaynde ma ginnaaw bu amee brevet itam la dem Dakar ci lycée Seydou Nourou Tall fa la amee baccalauréat avec mention ne moom bi nga xam ne daal euh, góorgóorlu itam waaye saa su nekk rek di def kéemtalaal kattanam ngir am ay notes yu baax moom moo nekk jikkoom mboolem ba mu dalee jàng ba. na mu jeexale am njàngam dañu ginnaaw bi itam am na daal ab euh, diplôme muy maîtrise en droit de ma ngi ko amee fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ginnaaw bi la docteur Abdoulaye Niane dem euh, admis benn concours ci benn école bu ñu wax ENAM l'école nationale des administrations mu admis fa euh, am na fa itam benn diplome en section et impôt et domaine section impôt et domaine en 2001 nañu sax foofee dafa génn major de sa promotion ginnaaw bi la am benn euh, diplôme dem fële ci réew yu sori ci réewum Angleterre euh, la am benn bourse ngir dem foofee ci réewum Angleterre am fa itam benn master of science master of science muy MSc mi ngi ko am ci wàllu gouvernance ak wàllu développement management option publique finance ma ngi ko amee ca l'université de Birmingham School of Public Policy International Development Department Royaume-Uni en 2011 mu ñëwaat fii ci Sénégal inscrit fële ci université Gaston Berger ngir nag euh, euh, euh, am diplôme bi di doctorat wala boog mu am diplôme bi doctorat en en 2011 la am un doctorat en droit privé fiscalité mu amee ko fële ci université Gaston Berger moom moom ñaan Niane ñu itam am na expérience bu bare bari ci wàllu administration sénégalaise ndax. def na lu at yu bëri bëri fukki at lu topp fële ca impôt direction générale des impôts et domaines am fa itam euh, ay jaar-jaar lool ab itam xam-xam lool ci wàllum euh, contrôle de grandes entreprises waaye aussi ci cadre législation fiscale nañu moom yi nga xam ne itam am njàng akum njàngale iteel na ko lool bokk na daal ci euh, mbindam tax na mu dem nag di joxe ay cours fële ci université bu euh, Alioune Diop ba nekk ca Bambey moom mi itam expert en fiscalité agréé la conseil juridique euh, am na itam ay compétences yu dëgër lool yu confirmé sur le plan national et international ci xam-xam bi jëm wàllum fiscalité ak wàllum économie Mouhalim Info. Mouhalim Info kii di Abdoulaye Wilane yor kaddu parti bii di PS nekkoon ganu émission bii di grand jury ci RFM avec Babacar Fall. àdduna ci lu ñel ay activités yi concerné parti bii di parti socialist moom mii di Abdoulaye Wilane nga xam ne moo yor kàddu parti bii di PS ne daal parti bii di PS moom nga xam ne depuis ba Ousmane Tanor Dieng faatoo ba léegi nag am ñu benn congrès nanoo di nag daal daañ ci ba la yàgg ndax am na daal benn lël boo xam ne waa secrétariat daa ñu ko amal alxames bi ñu dëkkmal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier wi ñu nekk nee na itam daañu ci war a waxtaanee poñ yu bare bari bokk na ci àndandoo bii ñu àndandoo ak waa benn bokk yaakaar ñu daal saytu ko càmbar ko démocratiquement naka lañu ànd ak ñoom ngeen résultat itam lañ ci mën a tiré buñ ci jógee itam daañu amal ab lël bu mag muy ab congrès daal boo xam ne day ñal parti bii di socialiste lu jëm ci wàllum élection 2024 ñu dëgmal itam moom daal nee na ndax candidat ndax PS day nekk candidat am déet nee na nag loolu dëgg la sax parti bu mën a nekk rek wala daal coalition bu mën seen ambition mooy euh, wuti ay élection dem ci jongante jéem a gagné pouvoir bi toog fa lu mu gën a yàgg waaye daal fi mu nekk nii ñun euh, am loolu nekk bu ñu ordre du jour du waaye nag moom parti bi di PS nag dàqul daal benn benn possibilité ci élection yi ñu dëkk mën mu war a am ci atum Sénégal ci mu war a am fii ci réewum Sénégal ci atum 2024 Mouhalim Info Mouhalim Info kii di Serigne Mboup maire bu euh, Kaolack nekkoon euh, ganu émission bii di jury di dimanche avec Mamadou Ibra Kane fële ci i rajo àdduna jëm ci lu ñel amnistie bi nga xam si ni njiitu réew mi junjoon na ko fii mu ñel Khalifa Sall ak Abdou Karim Wade moom mii di Serigne Boub daal nee na kii di président Macky Sall waxoon na joxoon na ndigal ministre de la justice ngir daal mu xool yan pexe ak yan possibilité lañu am ngir nag mën a euh, may amnistie kii di Karim Wade ak xalifa sàll moom Serigne Boub nee na. loolu nag moom mooy seule possibilité boo xam ne kat mën na tax Karim Wade ak Khalifa Sall ñëwaat ci langue politique gi te nag jàpp na ne moom njiitu réew mi dina ko respecté ndax daal doomu Saalum la en tant que doomu Saalum Saalum comme moom ni mu ko nekkee moom Serigne Mboup moom daal li mu gëm mooy Saalum Saalum day fonk kàddoom jàpp na ne kon loolu kat Macky Sall dina ko respecte ba ñi am euh, lu ñeel wàllum amnistie ba mën a bokkaat ci euh, jongante yi am jongante politique yi am fii ci réewum Sénégal nañ ci fàttali kii di euh, Abdou Karim Wade. ñu ngi ko tegoon ay daan fii ci réewum Sénégal ci atum 2015 euh, tëjoon ko lu toll ci juróom-benn ati kaso daanoon ko lu toll ci téeméeri milliards ak juróom fanweer ak juróom-ñett yu mu waroon a fay milliards kii di euh, kay Khalifa Sall ñu ko daanoon ci atum 2018. tëjoon ko juróomi ati kaso yu mu waroon tëdd waroon a itam joxe ndàmpaay lu toll ci juróomi million ci sunuy koppar muy 5 millions de francs CFA. ñoom ñi nga xam ne sax ñoo euh, waroon a nekk si candidat wu PDS moom Karim Wade ak candidat kii di euh, euh, coalition bii di taxaw Sénégal ak Khalifa Sall ñoom ñoom ñaar ñu daal boobu ba léegi nag euh, am amuñu benn possibilité ngir nag bokk ci benn jogante ci langue politique gi fii ci réew réewum Sénégal. Mouhalim Info. Mouhalim Info xibaar yi biti réew ñu dem ba fële ci réewum Turquie ab étudiante ngi nii ab sénégalais la demoon ay demoon fële ci réewum Turquie nag ngir daal doon fa amal ay vacances. gannaaw bi itam la demoon ci benn fabrique doon fa liggéey waaye moom dafa doon dafa tuumal ñaari doomi turki kat na ñoom ñii dañ ko doon sàkku gannaaw ba mu demee l'hôpital itam ba def examen war def yëpp daal ba dem ca police ba doon nag kalaame ñaari euh, doomi turki yi non seulement ñoo waa police bi jël lañ teg nañu loxo ñaari doomi turki yi waaye moom sénégalais bi dañu koo tegaale loxo xam daal nag moom euh, lii waa police bi wax mooy kii amul euh, permis de travail daal amul kayit goo xam ne kat mën na koo may muy liggéey fii ci réewum turki mu nekk nag mbir daal moo xam ne nag moom itteel na lool fédération sénégalaise ba nekk foofee ca réewum euh, amee yé bi ñu yëgee euh, bi depuis ajjuma la ñu contacté euh, bi jot nañ ko par téléphone moom ambassadeur bi kat mu xamal ne danañ def kenn ci bi danañ ko libéré mu dellu ci yitteem ba daal ñoom nouvelle yi ñu mujjee am kat nee na. nee ñu moom sénégalais bi ko yóbbu ca prison yi nekk daal mbir moo xam ne nii ñoom sénégalais yi ne foofee kat sénégalais yi ne foofee daal. naqarul nañ lool sax euh, yéex gi nga xamante ni dal ak ñàkk yittewoo gi nga xamante ni seen autorité ne foofa ca ca réewum turki ñàkk nañ ko yittewoo mbirum sénégalais bii ba gars yi mujj ko nag jàllale ca euh, prison ya mu nekk daal mbir moo xam ne ñoom ñu ngi ci woo mbooleem ko xamante ni euh, autorité nga ta nga mën ci dara nga def sa kémti la kattan ndax daal ñoom nouvelle bu mujjee am mooy tey jii ci dibéer ji moom étudiante boobee mu ngi nañ ko jàllale ca prison yi moo àllim info Mouhalim info tey jii ci dibéer ji fukki fan ak juróom ci weeru janvier 2023 ab communiqué de presse ngi nii kat boo xam ni waa ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur ñoo ko bind ñeel daal mbirum sénégalais boobee nga xam ne ab étudiante la te ñu teg ko loxo foofee ci réewum Turquie ginnaaw ba mu tuumaale ñaari doomi Turquie ne kat dañ ko doon violé moo tax ba daal le ministère des affaires de l'extérieur ñoom réagir nañ immédiatement d' abord contacté nañ autorité euh, nekk foofu ci réewum Turquie ngir daal nag euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo def jëf ju ñaaw jooju xale bu jigéen bi ñu traduire leen en justice teg leen ay daan yu méngoo ak jëf ju ñaaw jooju nga xam ne jëf nañ ko waaye tam ñu libéré seen doom seen doomu réew muy muy Sénégal ba ñu teg loxo ñu libéré ko ci nu mu gën a gaawee ñu ngi woo itam sénégalais yi nekkee réewum turki ñu ànd ak dal te lu autorités yi rek waaye itam bépp ubbi na leen itam ñoom seeni i bunt bépp képp daal ko xamante nii euh, mën nga ci dara te mën a ñoom itam ubbi na la bunt waaye daal ñu woo ak dal ak euh, ak may leen ñoom autorités ñu def seen kéemtalaal kattan daañu ko def bañ libéré sénégalais boobee waaye itam bañ teg ay daan ñoo ñooñu nga xam ne ñoo def jëf joojee jëf ju ñaaw joojee sénégalais boobee Mouhalim Info Mouhalim Info xibaar bi biti réew ba tey ñu dem ba fële ci réewum Népal te ji ci dibéer ji benn roppalaan boo xam ne kat dafa daanu waral nag daal bilan bi nga xam te ne moom la police mujj joxe daal lu toll ci juróom-ñaar fukki nit ak ñaar yoo xam ne kat ñàkk nañ seen bakkan fanweeri nit fanweeri koor daal fanweeri nit ñu ñu fekk ñu faatu euh, jot nañ leen gis ba yóbbu leen ca hôpitaux ya waaye itam gannaaw bi ñu ngi doon amal ay recherche ba tey police bu euh, AK Thiétry euh, mu ngi ne itam gisaat yeneen fanweeri néew ak juróom-benn 36 personnes yeneen yoo xamante ni itam. mu ngi ne leen euh, fekk ci benn ravin fu soriwul dara nag fi avion bi ba daanu ñoom itam seen i néew jël nañ leen ba yóbbu leen ca euh, morgue Mouhalim info. bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul fàtte abonné.